Mansour Mansour Cissé tey mooy suñu invité Mansour nag tey ñu war waxtaan li nga xamante ni mooy tolluwaayu réew bi dinañ ci ñëw par rapport ak le procès Sonko Mame Mbaye am ci sa jàngat ak li nga xamante ni lépp xew na ca ginnaaw Sonko euh, dans un état critique bu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni ay jege ñaar yu ko teg bët euh, nekk foofee nag jamono ji rek suma assistance ñi nga xamante ni nag ñoo di Euh, ñi bokk ci euh, Pastef euh, ñu gën ca ràññee ki nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Faye l'honorable député Abbas Sall ak ñeneen ñi kii sànq nag amoon nañu ab janook taskatu xabaar yi ngir ñëwaat ci situation mais également annoncé ay xibaar yu yees yi nga xamante jël nañu ko si notamment une plainte bi nga xam annoncé nañ ko contre l'État ci ñëw léegi léegi li nga xamante ni moom moo di sa sa gis-gis fi ñu dooree nag moo di par rapport ak ndaje taskatu xabaar ki nga xamante ni tout à l'heure waa def nañ ko Mansour ban gis-gis nga ci am par rapport ak état de santé wu Sonko bi nga xam ne wowal ñu woote ak mesures yi nga xamante ne jël nañ ko yaa ngi dégg léegi ma ne annoncé nañ en fait cest à li warul am saa bu amee rek xel yi dañuy indi xel yi dañuy xaw a jaxasoo xam nga kenn ku nekk aussi tamit euh, voilà quoi am ci gis-gis yu waroon alors que li waroon am mooy ki ñu convoqué am na yéene wuy ji bàyyi ko mu jël yoon wi nga xamante ne bii mooy bi ko rassuré wax dëgg na yàlla parce que OS aussi mënul taxaw euh, keroog euh, niñ koy waxatee stade Amadou Barry de Pikine lors de euh, de la rencontre initiée par le PUR mu wax ni moom keroog dugal biñ ko dugal ci engin wu blindé wu bib je pense bien c'était pour le sauver mu wëlbati ko waat ñu naan ko fii ngay jaaraat wax dëgg neex yàlla hmm, ci corniche bi yaa ngi dégg moom mu mu di fa jaaraat donc waroon nañu bàyyi moom mu jël yoon wi nga xamante ne bii mooy yoon wi dal xelam su ko defee ñu dem déglu ci ko léegi nag Sénégal bu nekkee saa bu ñu woowee nit ci teeyaayu bakkanam mu xëy solu ndekki mujjee clinique moom nañu pare rek léegi parce que ñiy tuumalaate moom ñi ngi tuumalaate ñiy def ñu ngi def nañu pare léegi rek ci xam ni saa bu ñu woowaatee nit au lieu ñu euh, boole kook euh, nuñ koy waxatee un force une force de défense un élément du du des de défense et de sécurité nañ ko booleek médecin parce que <laughs> loolu moom lu <laughs> extraordinaire la bu dee Mame Mbaye Niang moom biñ ko woowee kenn barikadiwul këram biñ ko woowee kenn sàkkalu ko yoon te bu ma kenn wax ni amul ay militant ak ay soppe yoo xamante ne bi ñëwuñu man ba démb rek waxtaan naa ci kenn ñëwuñu ànd ak Mame Mbaye Niang soutenir ko au nom tey jii Ousmane Sonko moom saa bu jógee parce que nit aussi tamit nag. ni nga toll rek non non waa mais loolu. du waa waa mais non loolu loolu maanaam nekkul loo xamante ne bii euh, déli la quoi. loolu c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas nit ku nekk ni nga toll noonu ngay wuyu jee Idrissa Seck biñ ko woowee ni mu toll noonu la wuyu jee Abdoulaye Wade ay yoon yoon ni mu toll noonu laan wuyu jee président Macky Sall 2008 2009 noonu la daan dem di wuyu jee wala benn bi ñu ko woowee commissariat central noonu la dem wuyu ji donc loolu nekkul lu extraordinaire léegi nag mbir bu nekkee lu ordinaire nga bëgg koo yóbbu ci lu extraordinaire mooy jël ay conséquences yu fâcheuses yoo yoo xamante ne en fait dafay fâcheuse alors que loolu warul nekk donc ñi masaw ñi nga xamante ne ñoo ci blessé ñëpp ñëpp ñëpp di jaale ñi nga xamante ne ñoo ci faatu di fàttali ne état bi waxoon na ne euh, quatorze morts yi danañ ci def enquête bu indépendante xam nga nit ñi dañuy wax naan non li amoon du fi amaan nangam nangam sëriñ bi y a des blessés wala soxna si y a des blessés ak deux morts ci benn fan six jour loolu mu am quatorze morts deux fois six douze ku la ne bu yëf wéyoon ci juróom-benni fan lu amaat doon histoire wala lu ko ëpp benn moom rek dafa am en fait dafa ëpp. mais par rapport ak plainte bi ñu annoncé contre l' du Sénégal. waaw loolu ndax ñoom jàpp nañ ni Ousmane Sonko. état du Sénégal justiciable euh, condition yu mu nekk euh, nguur da ci am loxo parce que nee nañ dafa am benn liquide bu nga xam moo lañ ko aspergé loolu waral euh, mu am jafe-jafe ci wàllub nooyeem gisoon nañ juste après Ousmane Sonko def poste ni dafa am ay vertige. ak yu mel ba ñu gis ambulance suma assistance ñu jël si ko këram ñu yóbbu ko fi nga xamante ni moo di ca clinique ba depuis lors mu ngi fa ñoom nag li ñu exiger moo di euh, ñu daal di koy euh, autoriser delloo ko li nga xamante ni moo di passeport mu def comme maître li maître Ciré euh, Clédor di avocat am def dem France ngir ñu mën a saytu li nga xamante ni moo di yaram mais également indi ay leeral par rapport liquide boobu nga xam ne asperger nañ ko ko. li may wax nii du appel traversé ma sax l'esprit mais bés bu Ousmane Sonko dee ci seen loxo le Sénégal va s'arrêter un moment lu leer laa la wax soxna si lu leer laa la wax yow nan nga mënee comprendre force bi ñu exercer ci moom ci fii rek nga war a jaar cest à loolu mooy problème bi ko quoi wax dëgg na yàlla buñ ko bàyyi woon mu dem wuyu ji mu ñëw 13 heures yàgg naa ko wax day ay conséquences de droit parce que yow boo fa nekkulee ala kulli alin yaakaaruma say avocat dinañ mën a plaider ba pare dafa am benn genre contradiction bu am mooy ñoom dañ ne ko ala kulli alin da ngay ñëw moom mu ñëw am lu ko gaar ci yoon wi mu génn saal bi yaa ngi dégg mu am ba euh, mu am bataille de procédure ci biir kon finalement kon affaire bi mënoon nañ ko juger te Sonko du fa nekk voilà ah mais comme moom moo tamit choisir ni ji. donc non day dem wuy ji dem wuy ji. mais est-ce que tamit bi bi demee ba choisir dafay wuy ji waroon na choisir la boo xam nga xamante ni moo di itinéraire li may wax nii du ay loo xam ne dama ko sos parce la constitution moo ko wax ak ay loi 78 yaa ngi dégg loolu sax c'est c'est sur les manifestations publiques yaa ngi dégg ou bien rassemblement public yaa xam ne moo koy tuddee mais nit ki la ne man damaa bëgg a wuy ji mais bàyyi ko mu wuy ji la ci yoon wi dal xelam. parce que tey usman Sonko boo ko newoon fii ngay jaar mu ànd ci ak yow contre son gré mais bu ko dalaa bu ko dara dalee yow fan ngay seete ah, fan ngay seete ba tey boobaa ñoom loolu seen responsabilité lay ah mu ngi noonu mais buñ ko bàyyee moom mu jaar yoon ba ko neex moom it bu ko dara dalee boobaa responsabilité kan lay nekk responsabilité am la ak entourage déet xam nga ni xam nga ni nag xam nga ni nag boobaa du yombee noonu. déedéet mais responsabilité am la moom Sonko il waaj am juróom fukki at Sonko xam nga ni du jël yoon moo xamante ne bii saa da koy sànq wala boobaa bokk doon loo xamante ne lu ko bett lay doon. pen na Sénégal daal fexee nañu fexe fexe fexe fexe ba nekkul en guerre mais la paix elle est mais maa suuf sànq yaa am solo sa biir. la paix du Sénégal présentement. elle est naturellement. yow yaa wax sànq lu am solo sa wax. yow yaa ñëwaat ci Sonko kàddu yi ci meeting pur. waaw takk der yi biñ ko génnee jour boobu dugal ko ci oto euh, dañ ko bëggoon sauver. Mm-hmm. wala boog dañ ko sauver. Mm-hmm. ndax amoon na ay ministres yu pour faat ko. Mm-hmm. moom moo ko wax ñëpp dégg ko. est ce que dans ce cas là loolee war tey ji mu am kóolute bu dox ci digganteem ak waa bu ñu ñëwaatee ni ko jaaral ni pour éviter ay trouble à l'ordre public ak mun ko nangu. ci diggante bi est ce que amul lu changé ba pare sax foofu ci Sonko yam man dama koy man je vais man je vais au-delà mooy est-ce que du ñi ñi ñi ñi ñu ñi mu jàpp ne wala yenn xel yi jàpp ne ñu ay nervi lañu est-ce que du ñooñu la ñu waroon artu dafa am benn ministre bu taxaw Pape Malick Dour moo ko wax ne dañuy créer benn unité de riposte waaye yow ana ministre de la jeunesse tak ak ay sécurité ak ay unité de riposte mission régalienne ministère de la jeunesse du gérer sécurité yu lu ci yoonam lan moo ci yoonam. mais ndax mënul nekk ay waxu ay waxu ay waxu politique kese. non waaw mais waru wax unité de réponse non no non c'est comme si Ousmane Sonko keroog au giga meeting bi muy taxaw ni je m'en la république de Macky Sall Macky Sall amul république te loolu tey jii bu ñu ko ko delloo woon étant de la république <laughs> mais loolu du ko neex c'est-à-dire des deux côtés. mais vois des propos yoo xamante ne c'est des propos maladroits. oui très maladroits <laughs> Macky Sall amul république. la république c'est boo xamante ne bii voilà il est incarné par une personne yaa ngi dégg mm. voilà mais c'est pas une personne qui est propriétaire ou bien le kii la le parrain en fait de république c'est pas ça te république ñun ñëpp ci lañ bokk parce que Ousmane Sonko tey quand il dit que je m'en fous de la république de de de de de de du président Macky Sall alors que moom ay ramifications ay mbicc kon cela veut dire que moom voilà warul nangu par exemple la république des deux côtés da ngay dégg ay propos yoo xamante ne c'est des propos maladroits l'un dans l'autre daal li xew wax dëgg neex yàlla ça menace laa quiétude de notre république. mais plainte bi ñu annoncé mën a dem fu sore waa am déet. loolu nag wax dëgg neex yàlla boo nañu bàyyee rek xool boo xam loolu fan lay mujj. mais daal li ma la mën a wax. soxna li ñu bëgg tamit ñooñu ñu yóbbu ko ca bitim réew. bu fa non si man li ma la wax. alors qu'il est sous contrôle judiciaire yëg yëg la du sax analyse. mais yëg yëg la boo xam ne su ma juumalee su ma ko amul début mars am ko début février mooy man du ma bett ñu xëy xëy ne Ousmane Sonko sàkkal nañ ko pexe franchement man loolu du ma bett parce que li xew nii nekkatul adversité politique nañu wax di dëgg. non c' est grave c' est grave. non mais ce que je dis bi normalement ça mérite benn une sorte de constatation matérielle waruñu xëy xëy fóot ko de non non non nañ jël yóbbu yóbbu bu dee ko war a yóbbu euh, laboratoire ay laborantin xool ko contre expertise ko ñu xam lan lañ ci sotti parce que loolu c'est important pour la suite pour la suite de l'événement c'est très important kaay ma yóbbu la nga ñibbi <laughs> mais du ci pompe bu dee parfois sax kenn sant la ko. mais nag bañ koy yóbbu nag euh, Mansour yaa ngi koy gisee image yi bëree ful bi bëri woon na trop hormis élément élément force de défense et de sécurité yi mani la yow ful bi bëri woon na koo fi woo koo fi woo ni mu toll noonu lay wuy jee. waaw mais d' accord nag yaa yu non defal ndànk par rapport liñ ko asperger lay wax ndax tey ji mun nañu am certitude que ni loolee ci force de défense la jógee. dama ne ñu ko ñu ko wër bëree woon nañu. xam nga yow yaa fi tudd FDS de man damane war na mën a am constatation matérielle de ce qu'a porté Ousmane Sonko dafa mel ni yàlla da leen a weer à moins que je ne sais pas ñu def seen yëf yaa ngi dégg lu weex la sol tàll yow lu sol la gis ko ci mbagam jëm ci loxom euh, euh, wàcc ci euh, avant-bras wala yow gisuloo ko. gis naa ko ah jeex na loolu nag nañ ko yóbbu fañ ko war yóbbu ay laborantin xool ko càmbar ko saytu ko expertiser ko. sous expertiser ko sur expertiser ko contre expertiser ko ñu wax ñu lan la. loolu su ma la déggee wax noonu da ngay dëggal ni euh, ñoom seen gis-gis par rapport dafa am lu ñu ko asperger. non man bàyyi yow benn bàyyi yow man yow je ne pas né avant-hier nga dëggal man dafa am lu may dëggal soo amul lu may taxaw fi wax. dama lay laaj man yaa quand même tamit yow yaa wax nañ jël yëreem dem dem dem dem. loolu de kenn ma ci woo xool ko. man sama non sama waxuma ñu jël ko yóbbu yow waxoo ñu yóbbu man kenn xëpp ma dara parfum laa laal ñëw toog jàpp sama ñàmbur léegi nag gis nañu même ku gisul même ku gisul séquence bi nit di jël moo xam pompe la moo xam lu mu doon asperger ko gis nga taas bu jaune loolu taas bu jaune gis nañ waaw moo tax ma ne loo bëgg wax foofu ci tax si aw ma lu ma ciy wax nañ ko yóbbu fañ ko war a yóbbu xool ko bu dee plainte daf ci war a am ñu def ci plainte ñu xaar une suite judiciaire un point c'est tout loolu la Serigne Mansour Sy Cissé wax waxuma leneen soxna si par rapport ak dem bi euh, jàpp nga dina yomb am déet dem ban puisqu'il est sous contrôle judiciaire dañoo bëgg ñu yóbbu ko bitim réew soxna si encore euh, warul woon sax nekk soxna si ci sababu kaay nga wuy si rek rek rek rek fi mu nekk nii on parle de suma assistance maintenant on parle mais dafa am benn questionnement woon bu ma bu ma bu ma gaar léegi ki war a défendre Ousmane Sonko maître Clédor sire Ly defe naa noonu la tudd moom de dafa mel ni ci chaise roulante la ñëwoon démb photo aéroport mu mel dañ koy évacuer waaye yow la war a défendre bu mujjee ci chaise roulante yow fan nga nar a mujj wala kenn ci ñi la <laughs> nar a défendre soxna si très sincèrement def politique di opposer Afrique non no non non non non dem xare sax moo ko gën a. demam dina yomb waawam déet Mansour sa gis-gis. non xaw ma ndax dem bi dina yomb du yomb mu yora naturellement un avis médical boo xamante ni bi c'est un légiste buñ ko requérir moo xam médecin traitant la moo xam médecin boo xamante ne bi je ne pas buñ ko requérir kooku aussi tamit mën nañ jël afi boobu ñu contre expertiser ko s'il s'avère nécessaire que ni euh, voilà Ousmane Sonko dafa war a génn loolu dara war a ci opposé wu Sonko dafa am garantie de représentativité. d'accord alors ci loolu. waaw ah. Bassirou Diomaye ci kàddoom